bokk yi fi daje di góor di jigéen di mag di ndaw Madické Dieng responsable politique à Touba Madiyana moo leen di nuyu di leen ziare di leen baal àq te di leen baalu àq xam naa ñuy tàmbalee waxtaan wi rekk ci sunu jàmbaar ja Cheikh Mouhamadul Bachir ñu gën koo xam ci Seex Basiiru Mbakke Zani waaye nag ñu daan ko wax Basiiru Mbakke Tiib yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te suuf woyof toy ci kawam ci barkeb Seexuna si Ahmad Bamba waaye nag ñu dajewaat fii tey fi ñu baaxoo woon a daje ci pàkk bu sell bii di këram ñu yàgg ko àndoon ak moom ba tey jii suñ boroom jëfe coobareem ca moom ñu daje fi tey di dundal loola li am solo nag mooy lii ñu def ku amum xel te xelu tey nit ku nite da xam ne defuñu ko ci asaar te dañ ko def ci ndigal ndax bu doon lu ñu amul ndigal la du ñu delloo buum ca boy boy ba te dañu ko andiwaat fii nga xam ne fi lañ ko baaxoo woon a àndeek moom ngir waxaat adduna bépp ñu waxtaanaat ak ñoom xam lan mooy liggéeyub sëriñ Basiiru Mbàkke Tiib liggéey boobu nag ci lañu ñu dajee mboolem ñii fi daje tey koo fi gis rek tey jii mu ñëw responsable la fa jóge ay militant newuñu fi ndax suñ doon woo ay militant dañuy génnee mbir mi yóbbu ko Mbàkke Bawal comme nañ ko defee woon ba muy rentrée politique waaye ay responsable politique ñoo fi daje tey yu dajewaat ginnaaw wàccug liggéeyub sëñ Bass Thioub ngir waxtaanewaat li nu bokk di ko ñawaat saytuwaat ko fas yéene ko antul nam ko bëggee woon yóbbu ko fa mu ko doon bëmax mu jëm fa incha allah loolu nag liñ ciy wax mooy bi ci jiitu ñoo ngi sant président de la république ci bi sëriñ bi wàccee ab liggéey def na ci jéego yu am solo ndax yabal na ñam war a yabal ñëpp ñu ñëw fekk ñu daaru salaam tiib andi am njaalam masawuñu ko loolu ñoo ngi ciy sant président de la république lu ko war la te def na ko waaye gannaaw ba mu defee loolu ba noppi tey ñoo ngi taxaw fii ci kër sëriñ Bassirou Mbacké Tiib di ko xamal ne njabootug sëriñ Bassirou Mbacké Tiib ñoo taxaw di wax ak moom di ay baayu di ay jirim ci politique ndax li tax ma wax loolu mooy sëriñ Bassirou Mbacke Typ lam manoon nun mënuñu ko fa manoon a àgg suñ kàddu du fa mën a àgg fa waxam manoon a àgg suñ wax mënu faa àgg fa tànkam manoon a àgg suñ tànk mënu faa àgg waaye nag liggéey bi mu liggéeyoon moom bàyyi na ko fi bàyyeenu ko nas ko ci buum te incha allahu tabaraka wa taala am nañu yéene àggale ko fa mu bëggoon mu àgg fa loolu nag kon ñoo ngi wax président de la république ne ko fii ci tuubaa la ne di ko fi liggéeyal ci Bennoo Bokk Yaakaar liggéey boobu ñu sëñ Basiiru Mbàkke ti bàyyee woon duñ ko bàyyi mukk mu naax saay waaye nag ñoo ngi koy wax ne nanu yërëm nanu jàpple nañu fàttaliku na bàyyi xel njabootuk sëñ Basiiru Mbàkke ti ñu ngi fii ci parti APR Bennoo Bokk Yaakaar di ko liggéeyal fii ci Touba li ñu yitte woon mooy reconnaissance ndax parti boo ci nekkee di liggéeyal nit dafa war a yëg ne yaa ngi ci biir parti bi di ko liggéeyal demuñu fenn nag dawuñu daayuñu xaddiwuñu dañuy ne ci biir di laaj li ñu war a laaj waaye na xam ne noo ngi fi ñun njabootug sëñ Basiiru Mbàkke Tiib di laaj li ñu war a laaj ci fiñ ko war a laajee ndax danoo bokk ci liggéey bi loolu yi nag sëñ Basiiru moo ñu namputal ci politigu yar teey tekk ba ñëpp xame ñu ko ndax yaakaar naa ne lii ñu def tey jii nii bara niiwaana luñ koy def waaye nag dafa mënatul a ñàkk ndax dafay mel ne politique gu Sénégal moo toll foo xamante nii ku médiatiser wut ñu noote la loolu it li ma ci jubla wax xamuñu ay liggéeykat ca nañ war a liggéeye liñ xam mooy kuy médiatiser yàllaa xam la muy médiatiser dëgg la wala du dëgg waaye nay wax rek di wi jëf nag ak wax dafa bokkul njabootuk sëñ Basiiru Mbàkke bi yaruñu leen ci médiatiser rek di dañ leen a yëf yar ci jëf ci terrain bi ba adduna bépp xam nañ ne ñan ñooy njabootu sëñ Basiiru Mbàkke Typ ci politique. foo dajeek ñoom ba fii may wax ak yow nii koo ci dajeel dana la jox cër ba mu la war a jox ngir yar bañ la yar ak taxawu ba la sëñ Basiiru Mbàkke Typ taxawu ci politique. loolu département bi région bi ñëpp a ko xam fi may terminer xëy na Abdou Lahad bu wax na ko waaye mënuma koo ñàkk bañ a wax ndax Touba dafa yaatu ñiy yëngu dafa bari ñiy wax dafa bari. waaye nag li nga xamante ne nii mën nañ ko cee sante muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde ma lépp loo xamante ne nii mën na ko wala xam na ko wala loo xamante ne nii lu mu gis lu mu war a wax la wala lu mu war a waxtaanee ñun wala loo xamante ne nii leer na ko ne bu ca mënu dara it lam ca man ci poosu boppam wala lam ca man ca xalaatu boppam dana ma ko wax mi ngi ciy jëflanteeg man kem kàttanam maa ngi koy sant di ko gërëm te di ko seereel média bépp waaye loolu lépp ak mel noonu dafa fekk ne lam man lay def waaye ñun ki ñuy waxal mooy président de la république na yëg njabootuk sëriñ Bassirou Mbacké Typ te xam ne ñi ngi fii ci Touba di ko liggéeyal ci parti bi liggéey bu mucc ayib boo xamante ne ni liggéey bu kiimtaane la kon nag li nduuf ci nag wi xajut ci cin li waaye ñun daal laase wuñ kenn missage bi ku dul président de la république moom la ñuy waxal directement aju ci kenn bootuwuñ ci kenn jaaruñ ci kenn loolu na ko leer parti bi nag ci lañ nekk di laaj lañ war a laaj ñun niti ndigal lañ ci ndigal lañ judd sëriñ Bassirou Mbacké Typ bi ko yàlla moomee seex Mouhamadinil Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak sëriñ Moussa Nawel mi nga xam ne kenn ku nekk xam nañ ne mooy taawu njabootuk sëñ Bassirou moo woote waxtaan wax ne ginnaaw Bassirou suñ boroom doxale na ci nii te Typ daara la daara nag day am jëwriñ te jëwriñ ji sëñ bee koy tànnal boppam moo sanc daaru salaam tiib falaa juddoo falaa yaroo falaa màgge xam naa la fa xew samay maam ñoo goral sëñ Basiiru dëkk ba kon daaru salaam tiib la fa xew xam naa ko mën naa cee wax bi demee noonu sëriñ bi joxe ndigal moom sëñ Muntaxa ci média laay wax ne ma Masamba Mbakke rakki sëñ Basiiru Mbakke tiib ji topp ci moom waxuma sëñ Isaa de sëñ Masamba laa wax nafa dem wuutu fa Basiiru ca liggéey ba loolu mooy ndigalul sëñ Muntaxa lim joxe boo seetloo di bii jàll Babacar mi jëli woon élément boobu ngay wax jël siwaat na fa yeneen élément bu weddi lañ fa wax demaat nañ fa def nañ fa lañ fa war a def wax nañ fa lañ fa war a wax tasaare nañ ko ci média bi adduna bépp déggandoo na ko xam nañ ne ñu njëkkoon a wax ci caaxaan lañ ne ci nar lañ ne nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon te danañ xam ne ànd ak ndigal mooy dëgg te ci ndigal ne noonu noo fa demoon man mii taxaw di wax ak yow noo demoon ngir daj lañ fa wax daj nañ ko ba mu set laa wax ci média teg fa lay dëgg lay dëgg mooy li sëñ Mountakha wax loolu ci lañ ànd tey ci lañ ànd ëllëg ku ci àndul foo xam jëmal ak loolu la cay dal yaa xam suñu yoon nekku ca ñun daal ndigalul sëñ Mountakha la ñuy wiyee jëfe nañ ko fa luñ ca fekk ñu jël.